mën naa yoo wax ne doole ji newu fi mais xam-xam bëre baa ngi fi. waaw loolu don la rek yàlla def si man rek. don waaw. fu mu toll nii gis nañu euh, fu mu toll nii yéenay yéenay ay li jàmbat hmm? ngeen taxaw ne tëcc tëcc grand combat bi doo leen ko libéré gars yi ci yéen la des de. non si promoteur bi la des suñu ñun promoteur la des. promoteur bi la des ah. promoteur bëggee bëggee combat bi sotti dina sotti. dana toj. waaw yow kon fu mu toll nii d'accord euh, différence différence xaalis bi moom ba muy ëpp ma seen différence boo amu si. ci. amu si. d' accord alors fu mu toll nii kon combat bi loolu rek ko téye gars yaa ngi naan Ama moo waxoon ni même avec 100 francs dana bëre ak moom. Ah, waaw loolu fa bëgg a bëree moom dafa wax loolu 100 francs nga bëree moom loolu turu bëre la moo la Balla Gaye bi moo la jëloon nënd sàmm ko jàkkaarloo Balla bañ. lu mujjee bëree Balla Gaye 40 40 millions. oui wàññi juróomi dërëm. oui lamb mooy dox rek. yaa ngi dañuy bëri ñoom ñaar. ñu gis ni booy bi fu peut-être combat bi mu ngi koy waajal ci combat bu yàgg ak yooyu yéen ragaloo leen loolu. ñun de yal na yàlla combat bi taxaw rek. nga ni yal na yàlla def combat bi taxaw ay kar yooyu ba amul yal na yàlla combat bi taxaw yow sóoroo loolu ay. na yàlla def taxaw rek loolu nag moo tax ñaan. yow combat bi daal la yàkkamti mu taxaw. na taxaw rek waaw na taxaw rek. <laughs> merci beaucoup. ok jërëjëf.